ma koy teg sur la table après nguur gi jël ay décision war a dem lijjanti problème yooyu yëpp te problème yëpp dinañ ko lijjanti mais dafa am koo xamante ne Adama Fall dafa fenal président Bassirou Diomaye Faye fenal ko fen yoo xamante ni mais nit ku booy fen ku du sax noyyi toog ci plateau di fen fenal mi mair yi nekk Thiès yëpp maire de ville maire commune yëpp mu fenal leen fenal fenal man ci xam nga foo defee erreur mënoon nga fen sa beneen fen bu sama yor newul mais da ngay boo xamante ni man li ngay wax man maa ko dund dund dund nii te toog di ko dund nii ba mu am ba jeex yow nga ñëw toog télé di fen fen yu ànd ak rëy boo xamante ni naan Babacar di jox nañ ko temps kii jox nañ ko temps maanaam bu la neexee jaay bu la neexee defal lii nga ni loolu la Bassirou Diomaye Faye wax ba pare di fenal président de la république ñun Macky Sall xam nga lan fan la ñu nekkoon nag nag moom ñun dañ koy bàyyi mu def ba pare ñu dem attaqué ji ay feem ni ko lii yow yaa ko def yéen nag ngeen di noonu loolu ngeen di bañ a dégg. bu leen wax ni moo ko def mais da ngeen di créer créer fen Bassirou président Bassirou Diomaye Faye wax lu leer nañ yow journaliste bi yaa ngi toog balaa nga invité ni di nga poser question ci daal gëstu ko ba maîtriser ko su déraillé nga tegaat ko ci raay nga toog bàyyi ko muy fen quoi nga koy xool naan ko ah ah ah ba pare muy fen avec arrogance ah ba am yow aadama Fall mën nga fen trop tu yow mën nga fen xamati nga parce que yenn mën fen yi rewande la parce parce que da ngay tiiñal ay nit fen yu tooy xib ah yeneen bi waxoon na ko de julli dina fen mun déedéet julli du fen say fen laay décortiquer Sénégalais yi étape par étape man ni naa la man vidéo bu ma def damay damay jox gars yi ni leen léeg léeg lii dem leen yow fen nga ba jeexal ci terrain mbuurkaat yi te joxoo kenn indice ni leen laaj leen kii wala boo kii lii dinga am prévu fii dara fen sa fen toog je vais pas laisser passer parce que fa laa moo tax ma lay tontu de sinon man sax wax ak yow man maa ngi ci problème sénégalais yi man sénégalais yee ma ñor li ñuy daj seen liggéey ak miet yi leen di fay salaire cinq cent mille sax nit mënu am Sénégal nit ñi di bëgg a dee di lijjanti yooyu yow nga ne fi di lijjanti di fen seen fen yooyu jeex maa ngi ñëw man naa la wax leen de man du ma Sonko boys du ma pro Sonko du ma pro Jomaay man Émirats arabes unis Cheikh Zayed bin Sultan El Nahyan man politique bi fii ñu man ñooma ma formaté xam nga ci ñan laa gën a aay ni Cheikh formé. ce pays ñi ma bokkal parti laa gën a ay boobu ba léegi 2021 ba léegi maa ngi yeeru benn meeru Pastef bu ma buñ naan dafa détourné dafa dugg ci ay affaire suuf wala ay affaire sàcc maa ngi leen di yeeru rek ku ko ci njëkka def di nga dégg loo xamante ne ci kër àdduna doo toog a wax wala ma dégg député yi am na ku ciy def di wala dara jàppal bàyyil bokk suñu parti wallaay doo toog a def di nga dégg lu mësul dégg doxuma sax ci ay affaire caaxaan yooyu opposant après la mais ñi ma bokkal parti ah raayib na jub de say fen nag laay dekoo tigal sénégalais yi journaliste boobu ak sénégalais yëpp dama leen di invité man dem leen ngeen déglu discours président Bassirou Diomaye fay li mu wax dafa ni ay nit ñu ngi fi di am ay vingt deux cent hectares pour benn nit am ku am quarante hectares ay benn nit ñu jël trois hectares jox ko municipalité bu Thiès ville tuddul ba léegi tur municipalité bi maanaam mooy cent vingt ñu jox ko municipalité bu cees loolu la président Bassirou Diomaye Faye wax. tuddul ba léegi tur waxul Babacar Diop de jox tuddul Thiès Nord tuddul Thiès tudd tudd leen sax après ba mu paree Bassirou Diomaye Faye Adama Fall toog naan dafa tudd euh, opposants yi de mais ñi faral moom tudd leen tu as jox na Babacar cent vingt hectares. jox na Birame Souleye Diop cinquante hectares jox na zone est cinquante hectares maanaam daf leen ko jox ñoom Birame Souleye cinquante kee cinq kee cent vingt Babacar kële cinquante maanaam bu la neexee jaayal defal la neex dangay fen tu mens tu dis pas la vérité tu es un menteur dama lay jox indice ba pare nit la demal ci waa Benno Bokk Yaakaar yi nekk conseiller ci mairie de ville bu Thiès nekk mairie zone nord nekk mairie zone est ay waa Benno Bokk Yaakaar ña nga ay conseillers. siège demal nga poser question comment c'est passé ils vont te dire nga xam ne kon da ngay fen yow ñi nga bokk a parti sax xam nañ da fen trois hectares yu ñu jox Babacar xam nga nan la film bi demee gouverneur bu Thiès ak préfet bu cees ak domaine bu cees ñoo lëkkaloo ak gouvernement Macky Sall dagg seeni terrain boole ñu sax ay maire ba ñu defee seeni teree ba coono di bëgg a jug ñu woo maire de ville Babacar. ni ko trois hectares yi pour municipalité bi maanaam pour conseiller yi waxuñu ko pour yow de ban ko ko joxee ba pare ni ko 3 120 hectares 120 parcelles yooyu sédd ci mairie commune yi Babacar Diop ni du ci jox benn mairie commune dara parce que lii conseillers yi ak ñiy liggéey ci mairie beeg yooyu bu leen ko séddalee sax doyul Babacar bañ gars yi dem sur la table toog Birame Souleye Diop. ministre Birame Souleye Diop dégloo baax Aram Fall waa waa waa APR a nga fa nga laaj leen Birame Souleye Diop ni bu leen toog sur la table bu leen sax toog ba leen ñu def lu leen neex parce que ëllëg lu ci am dinañ leen ci taqal te yaa ngi difeen fen yow di leen taqal nii di fen Adama après mairie zone S Diagne demul maître Diagne demul Birame Souleye demul mais mairie zone zone ouest jiite nee na comme moom parcelles yi ci commune am la ne il faut mu dem moom mu dem gars yi wax seen i wax foofu Banigance jox ko 65 parcelles mairie zone ouest moom sax parcelle yi mi ngi ci doon bëgg ba mu joxee ay conseillers yëpp am na yu ci xawoon tes mu bëggoon cee duut te amoon na ñeneen ñu mu waroon jox kooku. Birame Souleye ñu jox ko parcelle parcelles Thiès Nord municipalité bi 25 parcelles Thiès Est 25 parcelles Birame Souleye ni leen ba léegi demul fekkewul de courrier. authentique lan ko envoyé courrier authentique laa lay wax ni Adama Fall dégg nga say fen ak yi ngeen déglu mu baax ma leeral ne courrier Birame Souleye ni vingt cinq ak vingt cinq parcelles ci soixante seize conseillers Birame Souleye leen vingt cinq hectares yooyu euh, vingt cinq parcelles yi bàyyi ñu clôturer ko def ko armère cimetière gars yi xaw a gis seen bopp yooyu bàyyi mu sedd ni ok léegi yokkaatal nañ leen beneen vingt cinq muy cinquante yokkal jiite vingt cinq am benn commission boo xamante ni commission domaniale mi ngi ci mairie zone nord benn commission domaniale ñoo xamante ni lépp lu jëm ci suuf ñoo ñu ñoo koy partagé dégloo baax Adama Fall te nga laajte sa waa APR yi bu baax commission domaniale bi amul benn ni wala ñaar ñetti je benn waa Pastef bu fa bokk Birame Souleye au départ ni commission boobu bu fa benn waa Pastef bokk ndax ay affaire suuf la lu ci xew dinañ ni Pastef ak maire bi président bi MRDS la bokk imam Bachir saw mooy président bi ak waa APR ñoo bokk ci commission boobu ak waa PUR nga fa ak yeneen parti yu ndaw ndaw laayeen ñoo fa bokk Pastef benn nit newu fa benn ni wala ñaar mais benn nekk fa te ñooñu lépp luy suuf ñoom ñoo koy séddoo wool ñooñu nga laaj leen comment c'est passé après séddale bi ba ñuy jox conseil yi dañ parce que municipalité bi la ñuy wax dañ ni maire de treize conseillers yu jógee zone nord ak yeneen conseil yëpp yi yi siège so maire mairie de ville Babacar dina leen jox comme terrain yi fii doyul 66 te 50 la ñu ni léegi yeneen conseils yi nga xamante ne chaque jour ils son présents trois fois ci conseil des conseils ñëw nañu ñi absenté ak ñu mësul ñëw du nu am ñu ñooñu ñu jox leen ba pare li des quatre terrain ñu joxoon ko biram Souleye ni ko teel quatre terrain yi Birame delloo leen ko ni ko non jox leen ko ñeneen ña fa ne. après am ñu nekk di liggéey ci mairie bi ñenn ñi. ñu séddale leen ko biram gisul fekkewul waxu ji te courrier yëpp la yoroon mairie zone ouest danoo séddale terrain yi zone est séddale Babacar daf ko séddale conseillers yi ngay fen naan takaka may ni ko am jaayal defal lu la neex yow yaa mën a fen tu es un grand menteur gars yi nii la affaire bi demee parce que jeex na leneen lu leen wax ay fen la bañ nu ba nee nañu pour municipalité bi la municipalité tudduñu sax meer conseil ñun waa Thiès ñàkk nañu fayda ñu jël ay terrain jox kay municipalité ay maire di ko jël di ko jaay. yooyu ay affaire affaire la xew de xewul fii de ku kat def ñu séddale nañ ko conseil yëpp man sëy aw ma terrain bokk ma ci voilà nay leer. am ku naan Ibrahima wan bu gaaw rek démb moo toogoon jox ay affaire miin ci RTS naan euh, miin fii amul étranger ku ñëw deux ans ngay def dem yow dama la rus xaw ma la mais maa ngi jégalu de sénégalais. dem leen Mako Savo dollar mi ngi fees dell ak étranger yu fa def ay 6 7 ans ña fa ressources humaines sax ay étranger nga fa ay ganayen PMC ak AMS ay étranger ganayen ñoo koy gérer nee na ay étranger amuñu fa de toog ci télé clim bi laal la des fois ñu jox la ay rapportu fen enveloppe bi jaar ci suuf nga toog ci télé di wax loolu da dem ci miin ba xool yi étranger yaa fa fees dell wasalaam gars yi